asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne tey moom dama leen a bëggoon a wan euh, nan la créer euh, ak jëfandikoo compte Gmail maanaam Gmail daf lay permettre nga mën a di ak recevoir ay email euh, am na yeneen fonctionnalité yu bari yoo xam ne mi ngi ci biir daal loolu laa leen bëgg wan léegi mais pour création de compte Gmail compte Gmail bi tamit lu ci ëpp ñu ngi koy wooyee compte Google compte Google par exemple. bu ngeen xoolee sax lu mel ne appareil yi téléphone euh, kii téléphone Android yi euh, lu ci ëpp buy ñëw euh, pour nga mën cee télécharger dara il faut nga créer lu ñu wax compte Google ou bien compte moom la ñuy wax compte Gmail daal pour ngeen comprendre ko noonu loolu nag pour nga créer ko da dem ci benn navigateur lu mel ne Firefox fi mën nañ fi ñëw ngeen def gmail.com comme ni ngeen ko gisee nii gmail.com mën naa ko tapé nii sax gmail voilà gmail.com comme ni ngeen ko gisee nii gmail.com. voilà une fois nga tapé gmail point com léegi nga ñëw ci page bi nga xam ne moom moo lay permetre nga mën a créer euh, compte par exemple su nekkee ne am nga compte daal léegi nag ci procédure boobu laa leen bëgg a jaarale pour wan leen ni ñu créer compte voilà gis nga fii su la neexee mën nga cliquer cliquer fii ñu bind créer compte su la neexee mën nga cliquer bu nekkee da a fekkoon nga am compte gmail moom da ngay bës fii ñu bind connexion rek nga bind pour connecter wu mais comme amaguñ compte léegi dañuy créer cliquer fii ñu bind créer compte créer un compte comme ni ngeen gisee wala mën naa cliquer fii su ma neexee créer un compte waaw léegi su ma cliquer ci créer un compte boo ñëwee fii li mu la njëkk laaj mooy sa tur euh, par exemple mën naa jël fi benn tur Mor maa ngi damay jël benn tur hasard rek Mor fay par exemple voilà utilisateur bi fii mooy mooy li nga xam ne mooy doon sa euh, maanaam sa email adresse daal loolu lañu moom la ñu woowee email adresse ou bien adresse mail moom lañuy ñu mail daal léegi fii man maa choisir par exemple man maa def fay moor pour xool ba xam dana jàll fay moor fay moor voilà fay moor après nga choisir fii benn mot pass passe mot de passe ma def mot de passe simple 1 2 3 4 après ma def moor mais yaay xool mot de bu la arrangé daal boo xam ne ni doo ko gaaw fàtte par exemple soo ko bëggee xoolaal di nga tàppe nga gis nii dama bind un 2 3 4 m m moor voilà damaa bind 1 2 3 4 M M Mor loolu laay répété fii 1 2 3 4 M M gisee nii léegi après soo neexee mën nga ko euh, mën nga koo caché waat soo cliqué foofu noonu après nga def nga cliqué suivant léegi soo cliqué suivant gis nga nii dafa may dafa may bindal benn kii en rouge mu ne sa nom utilisateur est déjà utilisé. maanaam fay mor bi nii arobase gmail point com dafa am koo xam ne na ba pare léegi boo xoolee fii ci suuf day dafay proposé yeneen yeneen adresse euh, mail comme comme genre bi nii euh, proposé na ma fay mor fay mor 0 07 708 wala fay mor 4 916 03 ainsi de léegi mën naa jël bii fay mor 07 708 ma jël boobu yaa xool bi la arrangé gi jël ko quoi léegi après nga cliquer fii nii su la neexee mën nga jëm a créer benn boo xam ne nii euh, day doon boo xam ne doo gaaw fàtte daal parce que adresse mail bi tamit waroo ko fàtte lu am solo la léegi nga cliquer fii ci suivant léegi boo cliquer ci suivant mu demande la fi benn numéro téléphone numéro téléphone nag c'est très important il faut nga dóor ko parce que numéro téléphone boobu noonu après ñoom dañ la ciy envoyé benn message voilà dañ lay envoyé benn message message boobu suñu la ko envoyé euh, dañ la koy demandaan nga ko foofu léegi Euh, boo dugalee numéro téléphone bi par exemple euh, fii moom dama leen di wan exemple rek 77 euh, 11 ainsi de dama jël benn numéro téléphone au hasard nii rek après adresse mail de récupération facultative léegi bii adresse mail lay doon boo xam ne par exemple bu nekkee ne am nga adresse benn adresse email boo xam ne nii pour boo amee problème lool lii nag su la neexee mën nga ko bañ a remplir quoi pense bien mën nga ko bañ a mais su nekkee am nga benn adresse mail wala sa benn xarit boo xam ne wóolu ko am na adresse mail euh, koo xam comme confiance da ngay def adresse mail am fii nii comme ni mu waxee nous nous n'utilisons que pour sécuriser votre compte léegi euh, boo paree nga def sa date de naissance par exemple jour bi ak kii bi sexe bi nga def par exemple euh, su dee homme nga def homme non précisé ainsi de suite léegi après nga ñëw fii nii def suivant voilà léegi boo defee suivant. xaaral ma xool euh, choisir fii zéro un mois de mars par exemple ma def mille neuf cent quatre-vingt sexe léegi mu ne pour vérifier ce numéro est bien le vôtre Google va envoyer un message de validation léegi mën nga cliquer fii envoyer wala nga def pas maintenant léegi boo defee envoyer mooy la man doon wax noonu après ñoom ci lañ lay envoyer benn message de validation boo xam ne nii message boobu noonu moom ngay dugal après c'est que bëgguma créer compte bi quoi moo tax euh, bëgguma exactement dem ba ba création compte bi jeex mais dama leen bëggoon daal ne étapes yooyu ngay suivre pour créer compte bi léegi une fois nga créer compte bi ba pare soo su la envoyé message parce que téléphone bi ma jël di bi nii nekkul numéro boo xam ne dama ko jël au hasard rek mais dama ne doon bëggoon wan quoi parce que man bëgguma créer at beneen compte Gmail te doyu ma ko dara quoi léegi euh, une fois nga créer compte ba pare léegi dañuy ñëw fii nii par exemple benn am na benn compte email bu mu am fii nii compte bi c'est déjà créé gis nga nii boo ñëwee fii bois de réception mooy fi nga xam ne fi ngay recevoir recevoir say messages euh, fi ngay recevoir say messages fii nii fi ngay defee sa message de suivi euh, message de suivi message envoyé mooy message yi nga xam ne yónnee nga par exemple boo gisee fi man sax envoyé ma benn message boo cliqué fii plus plus fii nii boo wàccee am na lu ñuy wax euh, kii loolu tamit am solo spam spam mooy message yi nga xam ne nii maanaam euh, Google da koy recevoir te amu ci confiance léegi ci boîte spam bi fii la koy def boo xoolee fii amu fi mais boîte spam en général email ya fay nekk email lay doon yoo xam ne email yu ñu amul confiance la daal yoo xam ne peut-être euh, am nañ ci tuuti soupçon moo tax ñu koy envoyé foofu daal léegi grosso loolu la. léegi in fois nga def loolu léegi euh, li ma leen gënoon wan li ma li ma leen gënoon bëgg wan mooy nan ngay envoyer message boo bëggee envoyer message fii ñu cliquer nouveau message ngay dem léegi boo cliquer ci nouveau message euh, attends dafa am benn fenêtre bu ubbeeku léegi fenêtre boobu noonu fii ñu bind A foofu ngay def adresse mail ki nga xam ne moom ngay envoyer par exemple adresse mail adresse mail ki ngay yónnee fii ne bu leen fi def adresse mail dama leen wan exemple rek adresse mail par ne waa ji euh, adresse am dafa nekk. par exemple dafa nekk Moodu euh, par exemple dafa nekk Moodu arobase par exemple euh, gmail point com ainsi de suite gmail point com léegi moom ngay def fii nii léegi nga def objet bi nga def sujet bi par exemple li nga ko bëgg a yónnee par exemple da nga ko bëgg a euh, nuyu wala demee noonu nga def salut wala yaay xool li nga bëgg a foofu rek pour. objet bi quoi li muy doon léegi après fii ngay bind sa message soo bindee message bi après nga cliquer envoyer soo cliquer envoyer automatiquement day dem bu nekk ne email bi tamit il faut nekk euh, euh, ne da ngeen ko bëgg fii ngay cliquer mooy fi mu bind joindre fichier par exemple bu nekkoon da am benn photo. wala benn sa benn document boo xam ne da ko bëgg a boole ko bëgg attaché ci email da nga ko boole boole ci email bi da ngay fii ñu lay joindre fichier boo fi cliquer nii rek gis nga ni automatiquement sa kii bi euh, sa disque euh, sa sa fichier yi fi nekk rek ubbeeku nga bu nekkee ne par exemple fichier yi ci document la nekk wala wala image la wala lu mu mën di doon boo da ngay dem foofu après nga récupérer fi nga nga sélectionner fichier bi bu ko defee fichier bi day daal télécharger wu fi nii nga soog a cliquer envoyé léegi boo cliquer envoyé automatiquement ki nga envoyé euh, message bi day jot document yooyu wala wala fichier yi daal. Euh, donc euh, loolu daal laa ne woon naa ko indi ci euh, compte Google bi wala compte Gmail léegi nag fonctionnalité yi nga xam ne moom laa leen wax à part à part Gmail bi nga xam ne moo lay permettre ngay ay mail ak di recevoir mail fii nii am na fonctionnalité yu bari parce que ñu bari tamit li ñu xamul mooy une fois nga am compte Gmail mel na ne am nga compte YouTube gis nga ni YouTube bi boo demee YouTube soxla soxla même même compte bi nga créé woon noonu. même euh, adresse mail boobu moom ngay dugal ci YouTube bi bu nekkee ne da nga bëgg a accéder sa compte YouTube ak même mot de passe euh, su nekkee da nga bëgg a dem Play Store tamit même même chose Play Store xam naa ñuy utiliser euh, xam nañ ko su nekkee da nga bëgg a dem par exemple pour map map mooy affaire carte nii Google Map quoi même chose bu nekkee da nga bëgg a dem ci sa drive Google Drive Google Drive moom li muy per li mu lay li mu lay permettre mooy nga mën di denc ay fichiers. par exemple soo amoon fichier yoo euh, la amoon solo mën ko denc ci Google Drive te avantage Google Drive mooy euh, boo ko ci defee machine bu la neex mën nga mën ngaa mën ci fichier yooyu par exemple nekkul ne machine bii nga accéder Google Drive rek moo yor fichier yi mais fichier yi boo ko defee ci Google Drive Google daf ko garder ci seen serveur yi nga xam ne de ce fait yow foo mën dem ci àdduna bi rek boo duggee sa compte Gmail rek da nga mën a dem ci sa Google yi nga xam ne moo nga garder woon ci Google dafa nekk en rela euh, maanaam ci benn compte bi la ñuy fonctionner donc euh, lii daal doon lu ama am solo loo xam ne nii euh, dama leen ko bëggoon bàyyi la xel xamal ne leen compte Gmail moom une fois nga créé ko avec Google ñu di ko woowee compte Google am nga fonctionnalité yi yëpp ci benn compte bi nga xam moom même identifiant bi ak mot de passe ngay utiliser muy adresse mail bi ak mot de passe donc laa loolu laa ne woon naa leen ko indil comme information pour compte Gmail di leen jaajëfal yéen ñëpp.